asalaamaaleykum maa ngi tudd kër Mboup man maa ngi infirmier chef de poste fii ci dispensaire madame Ba Kër Massar xam nga ñun moom vraiment dañuy liggéey ci wàllu santé mais ñun moom dañoo waat donc ñun nu mu mënta demee rek dañuy nekk fii ku ñëw ñu recevoir la li nga bëgg ñu def ko dañuy jël aussi précaution yi nga xam ne moo disponible rek mais vraiment ñu ngi lancé tam état appel pour mu gëna jappalé agent de santé parce que nous ñëwé au niveau des postes de santé vraiment personnel en général dina mat 30 personnes ou 40 personnes xam nga né ñooñu masques yo xam dañ utiliser au moins ben par jour au moins. donc poste de santé ils ont besoin de masques population bi tam ñu ngi appel pour que les poste de santé buñ des masques yu disponible ñun sax fi mu ne nii dañuy dem di commander ay masques di ko jënd ak xaalis pour mën ko mettre à la disposition du personnel parce que tamit du ñu xaar rek état fi mu ne nii affaire bi dafa toll foo xam ne état mi ngi def li mu mën mais ku nekk da nga war a bay sawaar parce que ñëpp la concerné donc damay sensibiliser population Kër Massar comme yéen initiative bu rafet bi ngeen am aussi yeneen jeunes yëpp na ci ñëpp jàpp ku mën a dimbale masque sa waa koñ sa waa dispensaire ku mën a dimbale nit ci noo ko mën a a taxaw ci parce que xeex bi moom il faut ñëpp jàpp ci pour mu mën a jëm kanam de façon fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax Kër Massar actuellement c'est calme nañ ñaan yàlla ñu am loolu ba ci kanam kanam ba affaire bi jeef jóge fa dem géej ba Sénégal kenn du fi dégg benn cas loolu la ñuy ñaan yàlla. ñun ñu mën a nekk suñu kër ci jàmm parce que ñun ay borom njaboot lañ ci lépp lu ñu fi jëlee mën nañ ko yóbbu suñu kër donc vraiment aar sa bopp aar sa njaboot li ñuy war moo war képp koo xam ne yaa ngi yëngatu Kër Massar.